sugu laa ilaaha illallah. ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Mama Sougou ibn Serigne Ahmadou Tasrif Sougou ak mboolem njabootuk Serigne Jéeri Waadaan Sougou Serigne Ahmadou Tasrif Sougou ibn Serigne ma Sougou moom Serigne Ahmadou Tasrif ñoo am mbégte di yëgle ka woote bésub sant Serigne Jéeri daan bi muy amal ca Treichville Abidjan ca Côte d'Ivoire alxames sukki fan ak ñaar ci weeru septembre ca buntu kër Serigne Touba Baga mu tudde ko jàmbaaru l'islam di kenn ci yoonu murit Serigne Ibrahima Diop al machariyu dara jaale ko nag professeur Issa Sall di invité d'honneur jàngkat ba Serigne Khadim Gueye di jógee Sénégal nara feggoo ak Serigne Pathé Mbeng di jàngkat ak mbooleem jàngkatu xasida yi nekk Abidjan programme bi nii lay tëddee gannaaw bernde yi 17 di 5 heures zikr ak mbokk talibé Baye Fall yi 20 heures Serigne Pathé Mbeng jël 21 heures ba 22 bi thème bi Serigne Jéeri Wadaan ak xam Mouride 23h Serigne Khadim Gueye jàngkat bi xew ci jamono ànd ak mbooloo mi ci xasida yi ba 2h du matin ñu ñaan yeewi mbooloo mi ñu di ko yëgal jabootug sëriñ Touba gépp rawatina Serigne Mourtala Abdoulahad Mbacké mi leen nekkal Abidjan mbooleem jabootug parrain bi xalifa ba di Serigne Cheikh Ibrahima Diop di ko yëgal cheikh yi mboolem taaliba yi rawatina nag jëwriñ ma Makumba Thiam ak Serigne Ahmadou Tasrif Tall jiitu daayira Serigne Jiir yi soxna Astou Ndiaye ak soxna Fat Diop Thiam jiite daayira Mame Diarra ci Abidjan beral ab woote jabootug sëriñ Jéeri Waadaan yépp xalifa ba di sëriñ Maxtar Sugg ak sëriñ Bamba Sugg di xalifa sëriñ Ahmadou Tasrif di ci woo mboolem këru diine yi mbokku taalibe tijaan yi waa kër Seydi Haj Malik Si mbokku xaadir yi laayeen yi ñaseen yi ak taaleen yi di ci woo ambassadeur Abdoulahad Sourang ak mboolem kilifay diine ak kilifay aada yi nekk Abidjan bés bango grande nuit sant sëriñ Jéeri Waadaan Sugg ci Treichville Abidjan alxemes fukki fan ak ñaar ci weeru septembre 2019 ak sëriñ Ahmadou Tasrif Sugg ibnu sëriñ Mama Gakou ibnu Serigne Ahmadou Tasrif ñuy ñaan képp ku fa teew mu doon sag pajum aajo ak sag defaru tey ak ëllëg ci barke Serigne Jéeri Wadaan ci darajay Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul